samedi 21 novembre 2020 nekk bés bi nga xamante ni àdduna sépp di màggal li nga xamante ni moo di journée mondiale télévision nu jagleel ko jumtukaay bi nga xamante ni moo di tele UNESCO nag moom moo ko njëkk xalaat boole ko ci agenda wam muy mel ni nag depuis boobu léegi ñu ngi seetlu ni télévision mu ngi joué role bu am solo ci diggante dëkk ak dëkk ak tamit ci diggante kaaraange ak lépp lu jëm ci mbirum développement àdduna bi nag ñëpp maasoon na ni télévision am la ci lépp information xibaar nekk li nga xamante ne àdduna sépp ñoo ko yittewoo fii ci Sénégal liñ ci seetlu rek mooy télévision RTS bokk ci télévision bi nga xamante ne moo fi njëkk mu tàmbalee ko ci RTS di 4 octobre 1973 mu nekkoon na diggante waxtaan bu seq diggante rajo Gambia ak li nga xamante ne moo di Sénégal ñu boole seen doole ngir taxawal li nga xamante ne moo di RTS mu nekk tamit kuréel bi nga xamante ne moo dem ba jur RTS muy rajo télévision sénégalaise. li bi nga xamante ne ñëpp ñoo ko ko li ñu seet rek mooy at yi passé li télévision euh, privée yi dañoo am doole bu am solo ñëw tamit teg seen ay ndënd teg seen ay programme yu bees ngir jàmmaarloo ak RTS ngir gën a mën a diversifier li nga xamante moo di wàllu programme télévision waaye nag yu mel ne nag sénégalais yi ñu ci seetlu toll si soixante-quinze pour cent ci ay sénégalais dañu jëfandikoo li nga xamante moom moo di télé seen biir kër moo jëlee fukki ménage huit yëpp am nañu télé seen biir kër mu nekk li nga xamante sénégalais yi sopp nañ ko loolu sax ndaxte dana leen permettre ñu mën a am xibaar mën a tamit wàllu éducation ak mbirum sensibilisation ak tamit gën a mën a fexe tamit euh, mën a teewlu lépp jëm ci mbirum divertissement télévision fii ci Sénégal gis-gis yi tamit euh, waroon na ku nekk ak noo koy gisee li nga xamante moo di di télé am na njariñ loolu sax ndax day tax ñu gën a xam luy xew ci àdduna ñenn tamit jàpp ni wareef la si ñoom ñu gën a xool seen ay programme ak seen ay contenu ngir tamit gën a a saafaraal li nga xamante moo di bëgg-bëggu askan bi waaye luñ ñu am ci télévision fii ci Sénégal li ñu mën a wax rek mooy li nga xamante ne moo di développement internet atteindre na li nga xamante moo di benn développement rapide loolu moo tax ci mu ne télévision yi nag am nañu benn concurrent bu tar muy wàllug internet ak tamit lépp lu jëm ci mbiru médias sociaux ak tamit yenn site internet yi ñu mel ni yenn site internet yi sénégalais yi nag ñu ëpp nee nañu moom la ñuy jëfandikoo ndaxte moom moo gën a gaaw wàllu rapidité ak tamit moo gën a jàppandal si seen ay jëfandikoo moo tax fi mu ne nekk télévision yi laaj bu samp mooy ndax at seetlu mbirum internet mi ngi gën a jàpp ni acteur mi gën a am développement ku extraordinaire ak développement bu yéeme ci li nga xamante ne système médiatique bu jox ci àdduna wërngal képp.